barkib Seexul Xadim mu di saare fi Touba alxijratu daayira dimanche yéem boog nag ak ngontum soxna jaare fi am nañ fi sang bu te nekk ci suñu Mustafaa waaye nañ dem nag ñu xool yaay faal yi niñ toogee taxawal bis maam jaare ndax moom mën na boppam c'est un grand exploitant agricole ay hectare lay bay moom sëñ bi di ci dundal njabootam di ci dundal taalibe yi di ci dundal ay dongo donc daara yi wër ci di gox yi fasantikoo ci Sénégal ay centaines et des de taalibe fa nekk ci sax fi sabilillah mën ci ordonnance mën ci dépense mën ci soxla taalibe bi lool nak li ko ko may moy liggéey serigne touba wala plus darajatin bi ma amilu jàng bi dafa mo tresser seer cër bu am ci kaw am na foo xam ne si des na ko layal fu mu jaar ñu mën kaa yegg sëriñ Tuubaa fa la jaar kenn fa la jaar kenn fa jaar kon ñu xamni kon li ñi woote ci bamba gi du ay naxé du wér la ndax am na ñoo xamni symboliser nañ ko ci seen parcours ak seen seen seen seen représenté daara daara jaale butu jëwriñ ak ñooy jàmbaar ndeysaan ñu teew fii ci kanamu sëriñ bi ñu jëfal leen ak ñoo am Pastef waa Touba jaali ba ndeysaan soxna Aysa bisimilah jugal soxna Aysa ñëw bisimilah woo ci waa daara jaali ba ñu leen décoré kaamil alxuraan boobu cey sëñ Moustapha Imaam barki borom daaru cey amin barki borom daaru walaay sa lañ de waa ñii lañ daan naar ñoll ñi daan gis jaasi ji agressé ñëpp mu defar leen def leen ay góor yàlla yoo tarbiya di leen la sëriñ bi defoon te mu koy def te noonu samp na ko mel noonu ci digg Dakar nga xam ni ay dizaines voire des centaines de jeunes lay defar nga xam ne kon kooku il a une fonction non seulement sociale mais aussi une fonction mystique auprès de ces jeunes là. naka noonu ñi miin dëkk séeréer fa mel ni Diouroup sëriñ bi du dajtàngam fu ne li mu dégg ci yéen mooy li yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy xibaar waa ashabul kahf نحن نقص عليك نبعه بالحق إنه فتنة أرم بربهم وزناهم هدى يلسن بدنتين نسان يلسن بدنتين دقني تين لي خمني مولي نيانجل في سنطلع يمي تي سنطاك مي ولازم من لا يزال عابدا لربه إلا هدى وخايدا موتاهين لك مونيا لن لا خمني سنطلع مولي دقنوني ما يا ربي المريدين معاً fi fi xekkital xasina wasam nañ ma sëriñ bi ñu ngi leen di ñaanal lool yi kon nag ñu wàccee foofu suñuy kàddu ci digalu sëriñ bi te ngeen xam ne lépp loo xam ne jub ci ci jëmmam ju baax gi la lépp lu ju dëgg ci ñun ñii la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jotaayu murit fii ci Tuuba Alxijra ndeysaan jërëjëf barkalla Cheikh Basirou kon ñu dalalaat sama xel bu baax a baax a baax ci fi nga xam ne foofee liggéey bi di jaar waaye jàpp ne liggéeyal yàlla bu nangoo yu mel nii moo ciy feeñ kon sëñ Moustapha mbooloo mi yëpp sant nañ ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom kattanal la ndax luñ mos a yëkkati jox sëriñ bi Cheikh Baba aw na ci moom àgg ci sëriñ bi waaw. te nag li ma wax léegi loo waaye jege jege jaaral moom moo jaar gën laa jege jaaral kon day ñun amaat nañ tawféex bu baax a baax a baax a baax di ci santaat bu baax la ca des nag mooy ñu waajal comme sëriñ bi ñëw na bopp bu gis liggéey bi. ba dégg liñ fi wax kon nag beneen sasa ngi noonu buñ tolloon ci benn suñ toll yi dañoo war a àgg ci fukk على الإمام وآله وزبيه من بعد قادم البيه أكون زاهدا دمي في رماني وسيامي وسبيلا sëñ Ibrahima na tur yàlla bi jug na tur yàlla bi jug jolle ca kaw sëñ Ibrahima jolle ca kaw rek waaw na tur yàlla jug مصطفى إمام الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك في ذلك الفضل لا إله إلا الله علينا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 نادى الحق يقول هذه الى سلالة مستقيم وعلى اله حق خدم الله العظيم بحق ولد علي الموت راحة وفحت من كل شر وكر باقي الله ولد علي الموت راحة وفحت من كل شر وكر باقي الله ولد علي الموت راحة وفحت من كل شر وكر باقي الله امين امين ليس الله لا تلمن مهما قد لهم بشر كل ما أعطاه الله ونجني وجمع مسلمين مع الوهي جوائزك آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر معايبنا والكفنا وبها كلهم يا الله عنها خياب إيانا حملتما ناساك وأنت البر يا الله إبا البخيل ما خبر كلها وذن بر كلهم وغفرنا يا الله لا تخسر بها بما ليست بقادرة ولا تخيب غيرها يا الله واسقنا معها من مائك وسر من تحته من خلق الله من كان في الشر ذا غي ويهلك ذا كفر ولا مسلم من نحشاك الله محمد المسيح الأحياء لقائدنا جنة الخلد من حشي الله Amin baik bantu Aceh. Amin Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik bantu. Pembagi cun yang dok lo om solo cidaraji, bagi siapa? Cek, jambat lah deh. li nga xamante ni ah, moom la ñu bàyyi ko gisee nii arab soo la judd ndeysaan waaye dafa gëstu dafa topp barke borom daaru am na loo xamante ni tey moom soxla yi fësal nañ ko ndeysaan mooy seen liggéey seen pas-pas mm-hmm. yàlla leen ko suñu borom fay mm-hmm. da koy xamal soo ko bëggee dimbali àllaaxira tamit da koy xamal te xam-xam bi ñu fiy jub bi ñu fiy génn mi ngi fiy sax mi ngi fiy soxeekoo mm-hmm. ñoo ngi ñaan ñu jëriñ ñun ñëpp amiin yaa am mbégte ak gërëm ak kontaan